te si ànd ak euh, quelques responsables la coalition Benno Bokk Yaakaar ku mel ni le président Morane Gueye moo xam ne moo jiite la liste proportionnelle ak euh, le directeur Bara Gueye euh, li ñu gën a mën a fësal si sunu en fait ci impression mooy mbégte lañ gis tey parce que sénégal yi dañoo jóg waa Mbàkke particulièrement pour ñoo wote si dans le calme yéena ko seetlu seen bopp nit ñi ñu seen ay di waxtaan di kaf di rey Euh, te loolu moo ëpp solo ci ci ci ci leneen li mooy administration li ko waroon jàpp naa ne en tout cas jusqu'au moment où je parle ba tey ji may waxee ak yéen administration bi lépp loo xamante moo ko ci waroon def wala ci wàllu taxawaay ak ci wàllu jumtukaay mettre na lépp à la disposition de des des présidents de bureau de vote kon le scrutin mu ngi jaar ci yoon. tam yaakaar ne fii ak 18 heures tamit lépp ñun nii lay continuer déjà damay damay fàttali rek ne man ab euh, le maire actuel bi muy bi mu bi mu gagné élection 2014 je parle sous le contrôle de ses des responsables avec qui je suis ñi ma àndal ni tey le lendemain dama dem seet dama dem fekk këram félicité ko parce que dañoo am grandeur puis dañoo gëm démocratie élection dafa nekk baromètre pour pour am pour jeu démocratique bi bu yàlla defee maire Mbacke tamit dañuy taal suñu loxo képp ko fi nekk pas particulièrement pour le maire maire bi rek mais dañuy wax képp ku dëkk Mbacke ñu ñëw liggéey Mbacke am ñoo xam ñu ngi ci diaspora am ñoo xam ñuy Dakar am ñoo xam ñu ngi yeneen dëkk ñëpp ñoo war a jàpp ci liggéey Mbacke parce que liggéey Mbacke du galo ba moo koy def wala coalition Benno Bokk Yaakaar waa Mbacke ñoo porter le combat pour que seen dëkk mën a mën a gën a mën gën a mën a jëm ci kanam